les chantiers de la société ELDB, donc euh, électrification à travers tout le Sénégal. il y ko des def. Il y a des entrepreneurs. Il y a des collègues qui ont été en train de se faire. Il y a des ñaata qui ont été en train de des ma qui ont été en train de se faire. il a cinquantaine daal tous les deux. en train de se faire. Il y a des sama qui ont été en train de se faire. Maxa mooy sama rakk. mooy sa rakk waaw. alors euh, déjà yow nan ngeen jotee information bi. Euh, par téléphone on nous a appelé dire que il s'est passé quelque chose au niveau du chantier nous sommes venus. Mm-hmm. et fekk nañ fi gendarme yi. Ah, ak ñaari corps fekk ngeen fi gendarme yi. ak ñaari koor yi. ñaari corps waaw après ñu def seen cordon de sécurité kenn jege ñu. mais euh, nga jotee qu'est-ce que. exactement mënu ma wax mënu ma wax fi ma nekk dara quoi. Mm-hmm. Ah, mënu ma wax dara fi ma nekk si loolu ah. Euh, alors comment vous vous vivez ça sa rakk nga ñëw. Euh, metti ndax. bii ba ba minuit. on était ensemble. il m'a déposé chez moi. à minuit quarante cinq. ñu am suñu benn wëllëre sunu benn sëriñ. bu ñu demoon seeti waxtaan ak moom. doon sàkku ay ñaan. si liggéey bi ma yeewu suba dégg lii du ma def lu mu metti sa xol bett la tamit ndax amul woon rien à présager de cela waaw donc daal euh, yàgg na ñoo liggéey ñoom ñaar. Mm, ils ont toujours travaillé ensemble. donc on peut dire que dañu a déggoo moo tax seen diggante. waaw benn instant. Mm, wax loolu yëpp daal naa je euh, am lu wóor ma doog a wax incha allah. li xew moom vraiment lu yéeme la lu yéeme la quoi. parce que kee ñu tiire ne muy collège Jaxate suñu grand la. ñun ay ouvrier am lañ quoi ñun moom la ñuy liggéeyal ci sànce fii. Mm. mais daf fi ñëwoon tey seet si indi ñu yenn bagage sax ma indiwul otaam sax pour indil ma bureet yooyu quoi pour suñu liggéey mën a gaaw parce que maa ne ko dafa yeex mm-hmm. après si la ko ma fekk fii comme que temps doon nañ werante ba au fond xaw ma woon xaw ma lépp li na ci biir si seen werante ñoom ñaar mais li ma fekkee tey laa xam commencé nañ discuter bi ñu discuter ñun ñu taxaw pas que bañ boobu bañ ñu histoire pour bu ñu histoire ñu ñu man ci japp mais après bo ma wax wax wax wax jàmm wax wax bo xamné grawul dal man ci la après jëlé sama équipe commencé coffre ñom ñaar di soto di waxtaan lu yag ñom ñaar ñu ci biir auto ci biir auto bi waaw auto hmm. hmm. bi ñu dal sama bi ñom ñaar mais nak biñu waxtané ba wacc ci la garda yi nee nañ si la nak ci la ko maxane yow traître nga rek mu gestu ko ne ko merci parce que moom du nitu histoire mom mom musu war wax ci dara si la sa waay génne goon bi mu gëstu gis mu yor goon mu nekk mais man ngay génne ay goon pour tiital ma rek dégg naa mu téere ko sa waay daanu mu dolli. donc ñaari bal la ko. ñaari bal la ko dóor waaw moom mu dox ba si pied bi dóoroo pampal daanu.

donc ñoom ñaar mën nañu ay xarit ay xarit lañ woon vraiment yu pire sax ay xarit lañ woon parce que chantier bi lépp grand jaxate moom mu tiire moom moo ko réalisé moom mooy architecte bu mag bi moo ti moo def les plans moo def lépp vraiment lépp lépp moom moo ko def. keneen ki ko keneen ki moom it lan la. Maxa moom mooy entrepreneur bu mag bi mais kee mooy architecte mooy technicien bi waaw. donc diggante entrepreneur la ak architecte. ak architecte waaw. vraiment ñuy liggéey lu yàgg ñoom ñaar vraiment. lii kenn xaaru kenn xalaatu ko woon man mosum moom sax xalaatul sax xalaatul sax xelam doxul sax ni maxa dina ko masa njéem a agressé parce que mosul am doon nañu xuloo bay tegante na mais li am tey vraiment kenn xalaatu ko. kenn ban la woon. ban heure c'est juste ay ver vers eh, treize heures vers treize heures waaye vers treize quatorze heures moom euh, da nga jékki-jékki dégg coup de wala la. waaw dam jékki-jékki max ma copain ba ñu dégg tëf tëf. mu ne ma waa sax Ibrahima loolu du bal ma ne ko noonu. pétale la ci lañ dégg nag suñ beneen copain daw du yuuxu bokar bokar kay tiré nako tiré nako ci lañ daw ñëw fekk la ñom ñay mu tëdd fekk mom tiré nako bobu grand bi sax déwagul mom vraiment bobu ma ngi patiné mu loxo baagi lox ñun erreur lañ na doon def sax parce que dañ ko gën a garder ko ci 200 bi yóbbu gaay ñoo daw ñoo ñu bu leen laal ma ngi dañ ko doon garder ci 200 bi yóbbu ko ñun décision bu lañ jëlul gaay yi ne bu leen ko laal ci lañ nga bàyyi fofu nek yow bi nga ñëwé nga gis ñaari koor yi no réagiré non man dama dof ci sens yi sadik laa def billahi fim mu toll damay dox ba yàgg sax naa est-ce que dëgg la quoi barke rasulillah kii moom la moom lépp fekk si kanamam mooy kii di dem moom lépp ci kanam la ko fekk. mooy waajoon jàpp waaw parce que moom lañ bàyyiwoon foofu mu toog moom dafa mel ni ku xaw a. waaw parce que dañ ko bàyyiwoon mu toog foofu moo tax mu ñuy xaar. nit ñu demoon di kuule affaire yi quoi. moom moo ñu nettali lépp sax parce que ñun boobu ñu ngi si gannaaw fële quoi. moo ñu wax lépp mu doy parce que moom ngi taaw jaakaarloo ak ñoom. nekk mbir mu doy waar vraiment. fekk suñu grand bu nice. gendarme sànq bi ñuy fuyee paaka bi ñu génn soog a tolaar na nii ñaari arme la yor ñu raar na paaka bu toll nii non moom dafa ñëwoon moom pare woon moom pour dee mais ki mu rey dafa ko dara rey lor ka lor njabootam hmm. lor àdduna loral ñun ñëpp